waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santam di jaajëfal ñi ñu àndal ñëpp jëwriñ sax su waxee ba pare sax waruma jël kàddu kàddu baax ci dara waaye xool bu sedd rek moo tax may wax di ñaanal sëñ Abdou njaay mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi di ñaanal bépp dong bu topp boo topp ci moom li tax ñun ñu bég mooy yéen dong yi da ngeen a warul sëñ saaliw ndax sëñ Saliou da leen yar njàngal leen def ci yéen li mu leen def ci yéen ngeen waroon a génn ci daara ji nekk ci leneen ngeen ëlbatikuwaat dëdmal liggéey sëriñ Saliou bi ñu ñëw ñun soxna yi bëgg sëñ Saliou nag ñun dund ñu lu dul sëñ Saliou bëgguñu lu dul sëñ Saliou suñu xol yi boo ko xaroon boo jigéen di sëñ Saliou mu jeex tàkk ñu ñëw ànd ko yéen nag ngeen yaatal ñu dooleel ñu ba ñu am doole soo gisee bu ñuy ñëw Xelkom bu ñu sañoon ay milliards la ñuy am man de bu ma sañoon lu ci sama xol bii bu Xelkom jotee damay génnee budget boo xam ne benn ndongo du ci def dërëm lépp maa koy financé ñii fi nekk yëpp koo xar xolam loolu moo ci nekk kon nangeen ngeen ñu ñaanal gudd fan ñaanal ñu wér ñaanal yàlla barkeel suñu njaboot boobu xel koom jotatee lu ngeen soxla ñu defal leen ko ci barke Serigne Saliou loolu rek leen di ñaanal di sant soxna yëpp soxna yi jàmbaar lañu ñu ngi leen di ñaanal ku ñëw ak ku ñëwul man sama téléphone dañ may yónnee ay addiyee ba keroog ba may départ di ñëw ñu ngi may orange moo ne ñii di ma wari ku ñëwul ku ñëwul ñu ngi yónnee xaas kon ñaanal leen soxna yi baax yàlla guddal seen fan barke leen ndax soxna yëpp bëgg sëriñ Saliou kon yal na leen la barke barkeel seen njaboot yéen dongo yi nag mënuñu leen fay barke sëriñ Saliou mbake waru leen sëñ Saliou waaye yal na leen sëñ Saliou yëkkati ba ca kaw lu leen nar a daaneel yàlla na egg ci suuf ci barke seen Saliou te ngeen jog ca kaw kontaan nañu jërë ngeen jëf wa léegi léegi léegi Cheikh mbake man luma ci doon ñaan yeen ñi da ngeen a dafa yéen da ngeen a tax nit ñi ñëmé jël seen doom yobbu daara loolu da cey gëna neex ndax bu ñëk ba nit ñi dañ daan ragal daara ndax dañ naan bo yobbo sa doom bu ñëwaaté fi du la amal ñëriñ dama mhm. yalla baal ci kàddu yi maa ngi ci tubb baax tey jéggul waye loolu nga daan dégg mais tay ku leen gis da ngay am xel mu dal jël sa doom yëkëti ko yóbbu ca daara ja fu mu nekk ni ku nekk ngi woote di laacc bo bëgg yobbu sa doom daara noy def mhm. man ñi ma woo di ma laacc ku bëgg yobbu sa doom xel kom noy def dafa bari te dara waralu ko lu dul yéen mhm. kon seen taxawaay yàlla na yàgg sax kon sëñ bi rëccul woon lu mu doon def yéen moom lu mu def si yéen xam na ko te lii commencement la yéen bi yéen bi yegg seegul